maa fi gën a nekk xale way am na ñoo fi mag waaye man la yar daal ma jiite délégation bi ni toll délégation bi ñu ngi ko sasee ci turu Makhtar Diop Soubatel nga xam ne mooy président label Soubatel moo ñu yabal ñu ànd ak euh, sunu artiste leader Sidi Diop li nga xam ne sa rakk la sa xarit sa doomu ndey la jublu ci nag ci bis bu rëy bu ñu tuddee. ma ñibbi am gàcce lool wala mu mm-hmm. mais xaaruma ko fi te fekkoo ma ko fi. Mm-hmm. tey nag merci tuuti na waaye ku jëfut du ko dégg. la merci maa ngi lay gërëm ci accueil mm-hmm. maa ngi lay gërëm ci ni nga ñu dalale. parce que man ñii wër ma nii rek laa am. ñoom ñoo may guddil ñoom ñoo may jiitu ñoo may jox seen énergie. ñoo am njariñ ci man te amaana ñi fi toog ñëpp def maa si gën a nekk xale bu ma jumee mais xam naa ni ñoom nit kenn ku nekk boo indee xolam kontaan na lii nga def nii sagal ma ci seen kanam yàlla na la yàlla sagal man it maa ngi ñaan yàlla lépp loo xam ni bëgg nga ko yàlla na la ko suñu borom defal muy disque d'or yeeg disque disque disque platine yeeg disque diamant yeeg amiin ne boycott am na ko. lépp dina ñëw waaye yàlla nañ ko indil Sénégal. amiin yàlla nañ ko indil waaw yàlla nañ ko indil Sénégal. billaahi wallaahi wa tallaahi ci sama biir xol laa ko tuddee. lépp loo xam ne ay disque la. nigérien yeeg américain yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di ko am. bi laay gën a ñu ko mérité. suñu ay yaay liggéey nañ ko. suñu ay baay liggéey nañ ko. te sonn nañ ci. yàlla nañ ko indil Sénégal. kontaan naa te rëccuuma aussi li ma leen màggalee sama bopp. parce que nag boo amul kilifa rek gën na nekk si kilifa. du dëgg. ma jógee ci pap mu wax ma wax yu rafet. mu sama pap yi mu wax ma wax yu rafet. ma ñëwee fii day kenn ku nekk déggoo ak ñoom. waa lii day wane ni. góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla donc dama jóge ci bàyyi wàcc mag jóge ci mag wàccaat ci mag mm. te moo fi jógee noonu laay demee ci suma yeneen frères yi waaye tey ji lii ku ko seetaan mm. man ñeneen ñi billaahi wallaahi ku ma ci eggul sa kër sax xam naa ni kontaan nga mm. parce que lii rek la Sénégal bëgg lii la àdduna bëgg ñu ngi jël temps bi trop teranga bii nag fi mu jógee yàlla na fa ay milliards yàlla na fa ay milliards sax kontaan naa ci lool lool lool ndax li ma gënoon a ñor te yëkkati ma fi dogamu ñëw fi mm-hmm. barka Mouhamad am naa ko fi mm-hmm. mooy tuf mm-hmm. mooy yàlla nga am ndam parce que fa jiitu yaa ko fa jiitu boo ma ko ñaanalee suñu borom da koy def. te man xam naa yow sa xol bi nga am. boo ma ko ñaanalee suñu borom mën na ko def. donc yal na la yàlla defal jaaxle. amiin yàlla na la yàlla defal xéwal. yàlla gën ñu gën ñu boole. yàlla gën a boole xol yi. bis bi nag ñu ànd ci ci jàmm. egg ci jàmm te souligné nga tamit lu am solo. na communauté sénégalaise teel a génn. ma teel a yéeg. teel leen a bégal. dinaa fa def nag ay morceaux yoo xam ne hommage yoo xam ne. ah. ba ñu yegg ca. non surprise day doon. di nga am surprise de booy. jërëjëf maanaam tàggat invitation la yu bokkul. boucher aussi dafay invité ci kii nu mu tuddati. nee na moom loolu ko fi indi. ah ñaari ñaari plainte la. ah bëri restaurant bi. foofu ci la ñaari plainte la. ah. waaw léegi nag boo boo invité daf wax ma damay invité. keneen la yow ci xamante ne. man nag ni nga ko waxee comme ni nga bés bi sama gis la te xam nga ku la xool xam ne lii wax dëgg bés bi sama gis la. yaa profité dans les médias télégalais wax la ah. zan yi dusan challenge a souvenir nga nekk Diomaye fi mu def nii. loolu demal nga dóor ko mu daal. laa ilaaha illallaah. boo ko dóoree mu daal. ak ko def ko mu dóor ko si. laa ilaaha illallaah. parce que yaa ngi si teel ma ko wax. moom dañ ko doon ànd dóor ko mu daal. macha allah. man. ndeysaan parce que si li si wàll yi tu vois ces gestes tu vois tout da nga xam ne kii li muy wax dëgg la ci moom kii ay bët am na fu muy yóbbu man sax loolu du ma koy waxal parce que xam naa alors lii boo ko sampal dëgg lii man la war a neex. moom ak képp ku ngay àndal ak képp ku ngay àndal

seminocturno. Yep, nous maintenons ces milliers. Par exemple, base, nous avons seminocturno. Alors, bu ñu ñëwul xam naa não yow sax keroog la. mais bu ñu ñëwul handicap la ci yow. waaw parce que ñoom tamit dañ jël seen yëpp base. ñu xam ni waxtu bu mu war a tas. il faut ñu teel a génn. teel a génn teel a rak. au plus tard vingt et une heures trente ngay ci seen. mën nga teg ko ñu bii. nga avancé. man loolu laa ko wax nañ ñu Sénégalais yi. tey ñu jàppale Sénégalais yi. parce que si les gens ko Sénégal ils ne il parle pour le Sénégal. il parle pas pour le compte ni le Sénégal. il parle pour le Sénégal. alors ça se passe à l'extérieur. la communication doit se passer à l'extérieur. Mm. Allez tôt faire du tapage parce qu'il a besoin de ça. Mm. il doit être tranquille dans sa tête pour une bonne charge pour un bon problème si qui donne mu non non non elle le de waaw pour essayer de se concentrer parce que. il xam mm. na maanaam yow maa ngi koy wax. jërëjëf ne ko maa ngi koy wax. incha allah sant naa ko bu baax am naa ko am naa ko incha allah maa ngi lay ñaanal ci barke bi. amiin soo amee ndam it yàlla na ko tax. amiin yàlla ñu ngi jógee fii ci jàmm. ak fii ci jàmm. toj fa bàyyi fa jàmm. amiin si lépp fa ci jàmm. waaw góor di nga xam ni sama bés la. macha allah. benn góor gudd na waaye moo ci laaj borom borom. waaw Serigne dafa foog. li nga xam mu nekk lu mu kontaan loolu jërëjëf. jërëjëf. du ñàkk nga dugg ci boutique rek. dina ci lu xeere soxla. waaw dina si ma yow. muy lu rafet. macha allah ni ñu tàmbale woon. noonu la ñuy tëjaate. sama wax bu njëkk dama ni. sama wax bu njëkk dama ni. olof dani. ku nen nag waa ngi suuroo bu ko rayee ba la tax a mu wax ci biir woo xam ne génn ko ne gudd na waaye lu ca laal gudd la lii lan doon xaar ci yow. aka neexoon bu nu bu nu bu nu fi ne da nga fi ñëw nga woo <laughs> ñu ne da nga fee war a mu taxaw fii. waaye waa gis na. waaye mën naa ne ne bi ñuy ñëw ah. xanaa bu nu bu nu génnee rek nga laal li tax a dund. nga allah nga dalal nu. wax fi ay wax yoo xamante ni. adduna ñu koy seetaan. dina nga xamante ni ku la gën xol amul. wax ne la sa waa ji nga doyloo Amar Fall Seye Ngaye bu dëgg bàyyi la la ma farma bi yàlla si macha allah dañuy bu juddoo ba dee. jariñul kenn kenn jariñoowu ko mënoon naa bañ a judd. kon yow symbole nga. tiital nga ah. xa nekk nit boo xamante ni wax dëgg yàlla fi nga jël teg sa sa bët gëm nga ko moo tax ngay doxal kon lii nga ñaanal suñu frère waaye fii ku fi toog nag sa sedd fii ku fi toog ku na xanaa nga yor xanaa nga yor nga yor xolu xolu xeer kon ni ñu tàmbalee woon bañ ñaan noonu lañ koy tëjaatee ñuy ñaan nañu trop trop trop trop trop ndax aussi mënoon nañ ñëw yëkkati kàddu jox la nga waxee noo xam ne amaana du neex ni ma àndal wala du ma neex man wala ma ñuy gën am gàcce lool wala ma mais xaar ma ko fi te fekk ko ko tey nag nekk tuuti na waaye dëgg la rabbil alamin jërëjëf ñu am contentement bu baax a baax di nuyuwaat encore ñu ngi nekk ñëpp kenn ku nekk di la jox sa waxtu moom Makhtar Diop suba teel ñu koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla guddal fan te yàlla amiin allahumma amiin ñoom ñooy ay gëtëm ñooy ay tànkam ñooy lépp ñu gunge ki nga xamante ni mooy sunu frère